Kuan mi pala mbokki Mbour la rigola, bu 3 des provisions. Tay dañ fi ñëwoon ngir tànn beer bu mag organisé par le groupe Seigne Saliou de Mbour ngir lan ngir sargal wa Mbour kessé ñu ngi taxaw ak suñu xarit suñu doomu nday Samba Dem Samba lu waraloon seen organisation seen sabar bi tay fi ci Mbour. waaw soxna si ma ngi lay nuyu di la sargal. di la xamal ni ñoo ngeen fi ngeen wara ñëw. ndax euh, boo leen gisee affaire yi. Uh-huh. ñu tax ñu sargal Mbour. mooy ñu ñi di def sabar bi kenn dëkku ci mbuur te bañ fi ñëwee ba tey fii lañ nekk léegi nag ñoom yu baax yu ñuy defal ak yu baax yu ñuy teg barki maam Serap Fall ñu leen foog ñu sargal leen ndax ku ne xam na waaw Amadou ngi nii Pape Yoro ngi nii Alita ngi ñëw Oumy Dama ngi ñëw waaw mais damaa bëgg ci kanam tuuti fee oh damay ragal sa baara mbay yow de. Amadou yow nii nga def te dara xewagul ah kontaan nañ ci yow. bés eh, gis nga. waaw waa Mbour mom amuñu leneen luñ leen mën a fayee waaw dañuy jéem rek mais mënuñu. Aliou nii nga def. wa gis nga rek te dara xewagul. waa tey suñu tànn beer bii nag moom dañ koo def rek ngir sargal Mbour. kese. waaw rek dem. waaw wa ñun waa Mbour moom dañ leen jël rek def leen suñu yow nga def def lan. ah doo ma may non bàyyi ma topp ñoo ko gisandoo. waaw soxna si na nga def. maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla baax. naka guddi gi. waaw sant rek ñu góor góor waaw waaw ñu ngi daal di góorgóorlu. ñoo ñëwoon ànd ak waa 3D Provision. bëgg sëñ Saaliw te ñëpp nee yaay seen jigéen te ku ñëpp tifli nga tooy kon dañ la doon wax lan moo waraloon seen organisation bi. waaw dëgg neexul lu ko waral dañoo ñëw pour def sargal Mbour. te boo gisee ñu def loolu ñu dañoo and bokku nday ak baye di dundu ar ar doon lo xamanteni bi dafa graw dal fa metti da ngay genn ñu lay batal bu dee góor ñu na lay góor jigen nga bu dee jigéen day jagatu yoy ñu gumba taxlu dal japp dimbal suñu nday dimbal suñu baye moom tax jog ñu ñaan nak ay xalé lañ ñu ñaanal ñu jappalé ñu ñu jëm kanam dal ci kaw sa kanam ci lu baax loolu dal lañ jublu kon tey tan biir bi du yomb ëpp na ah wa ki Papa Dior ñu ngi lay nuyu. merci ñu ngay fay. waaw di ngeen sant di ngeen gërëm yéen it. ngay fay placement bi ngeen def nii neex na trop ci xol. waaw sargal Mbour bi nag dañ koo def parce que ñun ñii di sargal Mbour am naa yaakaar ne mennum ummi daam moo ci dëkk Mbour. bu ko weesoo ñun ñu ci des kenn dëkku ci Mbour. waaye yaaga dogal na waa Mbour ñoo ñu bëggal seen bopp. ko gisandoo waxtaan bi ñoo nekk noonu groupe bëgg sëñ Saliou. tey dañ doon laajte lan mooy sa tànk ci tànn béer bii nga xam ne ku la gis xam ne taaliba sëñ Saliou nga ñu bëggoon ba tey nag ñu taxawaat feek waaw mais santaat yàlla bu baax ah julliwaat ci yonent bi sant Serigne Touba bu baax di sant sama rakk yi nag muy Amadou Samba Pape Jodo, Alioune Thiaye ñuy samay rakk lu waay di liggéey nag ci àdduna ba doon fekk rek ci war ngaa sant yàlla parce que ñun lii ñoo ko def tey ñii ñoom bu ñëwee am nu defak mbuur mbuur am fu mu leen teg seen jikko la ñoom koo xamul noo koy def ku ne na mu la def a tax te ñun lu ñu waroon a def ci aar def nañ ko léegi ñii ñoo jël relève bi dañ leen di ñaanal gudd fan wér gi yaram ak fekke ak tal ak salaam looloo tax looloo waral sama teewaay si. Rihanna ni nga def baax na. yaa ñëw ci tànn beer bi nga de Samba moom dafa nekk di tuñu da nga ne soxna si. maa ngi ba Kaolack Samba dem déranger Samba dem a ngi ne xale fël-fël xale koo ba jinjeer xale bi nga xam ne bu wootee waal du dëgg papa John di way bakki Serigne Bamba. terrasse te fii dina mel ni mbaxalu xottu biteel ñew def bam baax wa ñew ci tande beer gi lool la. saar lañu la tay nu mu ñewé ci tande beer bi. ah dama ñew rek jappalé samay chamagne xam nga bes bi mom waa Mbuur ko mom té Samba dafa doon nit ku baax barki yonent bi. wa xana contané ko rek Samba sañ papa ju baax la. ambiance bi affaire yaangi commencé jax dama leen ni baye ngeen sétane ba ci kanam ñu ci waat fi ak yeen ndax tay sabar bi warul yomb. rek maa ngi sant yàlla bu baax. tey li fi waraloon say tànk. waaw man li war waral samay tànk bëri na lool am na yaakaar ne ñiy seetaan si dañoo bëgg njàpp bëgg waaxoo boys dëgg neexul ñu ko organiser nag doon samay mag bëgg ma ba mu jeex barke unité bi ñoom Alioune Taye ñoom Pape Diodo ñoom Samba ñoom Amadou barke unité Pape Diodo moom am naa yaakaar ne sax moo ma yar ñoom Oumy Dame doon samay jigéen doon samay xarit Pape Diodo moom moo ma yar maa ngi doog a jógee dakaar nii nag dama war a suyee Saly waaye nag dama ne balaa maa dem Saly dama fiy jaar ñu doon samay xarit nag bëggal ma seen bopp loolu rek a waral samay teewaay barki nit mi. sa teewaay si tànn bi rafet na torop waa dañoo bëggoon nga may ñu benn balaa sabar bi di jeex. waaw dëgg neexul dama leen koy may ba mu neex parce que am naa yaakaar ne tànn beer gi euh, du ñoom kese ñoo ma fii ne parce que ba ma fi ñëwee tamit gis naa fi samay fans am na ñoo xamante ne ñu ngi ma bëgg a gis mun nañ maa waaye gis nañ ma tey am na ñeneen ñu ma bëgg gis waaye nag Ah, maanaam yàlla dana def loo xamante ne dinañ ma gis te dëgg neexul maanaam ñun artistes moom fu ne la ñuy invité te fu ne lañuy dem waa dama lay may ñamal ci tuuti rek. waaw dama bëgg a ñamal ma ci tuuti rek. xale bi nag yow da ngaa bëgg xóot dafa mel nii ah, kon danaan sabarabaraab bax siidi bi daal. xoo. tarama tàcc mu tissi mu tijji mu tee. xoo. Eh, maam Serap nga yaakaar. danaan xoo. Thank you. ñu ne yow ba biir roche UG soir te pourtant boobu ñoo ngi am tase 2000 boo paree boo joué 2000 lañ lay fay mais sa ngor sa jàmbaar dëgg la moo tax nga uf Amadou Dem rak i Samba Dem ba tey ñu mën a jot biir muur barki yonent bi kii bari naa tey du ma wax ci moom parce que ay ree la ndax maa moom dañoo wàccoo ndax dama tuddee doon bari ñoom jaratul ndax badu dëgg la suma demé ba min sali bam xam la yalla ak ba nga la mais ba may sargal nguur sama xel ci yow la dem dem sa ba may sargal nguur sama xel ci artiste su nguur yépp la dem pourtant li dama toog rek mu nek sama xel man leen alintaan amadou pa yor umi daal dañuy sargal nguur la ta way ma ban seen a ngi nii waaw ma ñëw ànd ak badu ba lay ko ma ñu ci moom and ak tafa sen gannaaw ma ñëw ndeysaan mu metti won trop sama dem waaw li ngay wax laay seede rek waaw ma ñëw ma ñëw. ma ñëw ma ñëw ma lii rek lii rek lii boo ko waxee parce que lii lu am solo la. waaw yaakaar naa ma ñëw. Samba ak Amadou maa tax ñu xam ma jooy lu yàgg te nag aar moo garaaw ñii li leen teral tey simb la te man ba ma nekkee di simb dañ maa tere simb ñoom dañ maa tere simb dama bàyyi simb ñu continuer aar bi ñuy def. tay ñom sumb ñoo leen teral ma bàyyi sumb tey ñu continuer li sumb ba am lii tay te ba ma xamante ne ñoom tamit ba tey dara ñaawul kii ndax maa tuddee doom wax na dëgg amul dara lu wax ci man te bu leen demee ba yàlla xam leen tey ak fii nii ginnaaw mëjee mi sang mbay moo tax ndax tey mëjee moo daan ànd ak Amadou Deme kii mi ngi nekk kii kii maa ko njëkk a sumb loo ko ndax mu dem mëjee ne ko kaay takk ko gis maa booba kii simbagul kii di takk bay daaya booba kii kii dama wax la ñu ko simbee nit ñi dañoo bokk xam nga xam nga lan moo métti mooy bu defee sargal nguur ñëpp ñëw wuusi ñu ba toog ñibbi waxuñu leen lan moo tax def sargal nguur bu ñu ñibbee ne lan la wax xamul lañuy sargal nguur ma ñëw bañ fi ñëw saak lañ fi indi saak amaana man ba mbuus bu cent franc laa fi indi di sol benn tuwéy di sol benn calçon di ko fóot di dem soirée laajal pavillon zile zile waaye tey macha allah yàlla ñuy teral waa nguur gi ñuy teral bu ko dugg suñu nekk dañuy respecté amul lu sama morom bi góor yàlla di am te aw moo ko te lépp nguur laa ko amee léegi nag nguur xamul lu ma ñëwee di sargal parce que ñun dañoo def suñu nationalité nguur bu ñu demee Dakar xam nga wax waa nguur. Abdou Fall seer jaay ko dum li tax ma jooy na waaw bi ma jógee fii fii laa dëkkoon ñëpp a ma xam fii laa ñëw nii fii laa njëkk laa nga kon tey fii bu ngeen sàgganee fii mu sama xol tey sedd na voilà ngeen ay doom ay doom doom ay rak yoo xam ne da ngeen nii la tiitaroo maa sàgg maa fi nekkoon mu def bàyyi maa puso bi maa koy dëgg di ma ci seet ma mënu barke sëñ Fall yow lañ am ba di la gërëm ba jëm billahi wallahi wa taalahi man dama ñëw duma ci àdduna lu sëñ Fall ma jël sa boolu añ bi wàccee ba ñëw da la koy fay kenn du ma fekk kenn du dem ci benn sabar wala benn tànn day ba gisati lay wax bu dul liggéey sëñ Fall ñëwatu ma mais il faut que ma génn su ma ko deful rek maa doon waa waaye tàccu leen ma nii baytal baytal Thank you. ngir yàlla Sëriñ Touba Mbacke dañuy jàppale yóbbu sama kër moo ko ñu amee nga xam-xam bi nekk yëpp sama bopp si nekk ko ci ñoom soo ma fekkoon Sali yàlla Sali boo ma fekkee def lu neexul yàlla ma leen di la parce que Serigne Fallou ma yaakaar mu gépp xam na ne ma day wàcc mën naa bopp dafa nga toog waaye dalay caaxaan wala ñàkk fula wala ñàkk dignité man buur ba mu def kenn yabu sama baat ni ko te kenn waaye kenn yabu ñi ma yor kenn di ci toog kenn du ma neexul nawet a sant daa day ànd ak man ma fuuf lu jaar sama tur yaay la may wax man Dakar li muy réeree oma xarit samay magay samay xarit fecckat bu ma si dajal programme ñu Kaffrine bi nga wax sama tur nekk sama liggéey. barke Cheikhul Khadim fecc sama passion la mooy sama troisième liggéey sama ñaari liggéey laa yor macha allah di sant yàlla mais fecc dama ko bëgg. te nag mi may teral allah te ginnaaw yàlla ma wax maa fecc fuuf dañ koy waxtaanee gis nga ku dul gërëm nit doo gërëm yàlla tur yàllaa koy maye. tey man Sénégal maa ci a nekk xale ma bëgg moo man suñu bu fa ñëwee na fanaan ak man mel na mooy ñëw ku bëgg laa wax soo ma waroon ñàkk fayda laa dama am tuuti suñu waa boo ñëwee ñëwaat dañ naan ko bu ñëw ci barke borom Touba Mbacke. ndeysaan. xaw ma feneen la man laa wax man Dami Gueye. Dami Gueye monsieur Dami taxaw xam may wax. yow da ngaa gore. dama lay ñaanal. yow da gore.

te koo dékkal micro mu ne la Samba moo indi parce que dama dund ak loolu ak ñoom mais yéen it ngeen ci trop barki maam Seera Fall jàpp ngeen ci caméra yi gis naa affaire yi qualité bu baax bi Baye Fall dama bëgg vidéo yi ku ko seetaat woowa gars rek ñu jàpp comme nii ndax mënoon naa dem Dakar wala ma dem feneen mais mbuur laay sargal kon lépp mbuur la noonu la fa demee nga sargalee waa Mbour waa Mbour bi ngi seetaanee vidéo bi dañ kontaan ci yow tànn bi neex na ala daw gis nañ fi ay borom xoo ak ñeneen ñeneen ay artistes yu bëri ay ay aaw buur këram ñëpp gis nañ leen bali sama xarit nee saa bali xaritam ak ah, aaw <laughs> loolu dama gën a gis benn affaire buy naaw fii mais affaire loolu lu mu la man xaw ma ko daa mel ni loolu caméra exhibilité lañ <laughs> toj na fi nee na caméra expliqué leen saa ba loolu doroon la doroon. ak kii baru ko ci xaañ. xaañ tey gis nañ ni tànn beer bi ala daw mi na neex na macha allah. waaw ñu sant yàlla nag bu baax a baax di santate naan alhamdulilah rabbi alamin lii boo ko gisee sama fierté la man sama fierté ndax tamit ah, nagu ta saara ci buntu toolu saara lépp saara ko moom te Samba wala Amadou. wala Pape Dioto wala Alioune Taye xewle nit ñi gis ma ci ah, lu war la parce que lépp mën naa ni tey buñ fa amee lu nekk defu ma ko fi waaye destin bi mën naa ni man la ma feer ci ñoom torop nag macha allah ñu maîtriser li ñuy def mën go ñu ñëw fi am fi ay nit yu baax yoo xam ne tamit ñoo leen teral feer naa ci daal tamit du kontaan si yéen ñi tamit ñëw sama gars yi waa waa c'est compliqué équipe bi ñëpp kontaan naa daal. Siena Am Sabali ak waa 3D Pro kon ñoo fi ñëwoon ñu jox leen dig daje ba beneen yoon incha